صل على الذي به تجيب سيدنا سي المعجزات بالسلام في الآل والصحب مساسي سلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي ذايخا فوق مرامي بكن وكن لي الدهر وكن معي وكن لي ذايخا فوق مرامي بكن wajal bi jaayi ayaati saafiya laka bihi maa ujoor daafiya wajal bi jaayi ayaati saafiya laka bihi maa ujoor daafiya wajal bi jaayi ayaati saafiya laka bihi maa ujoor daafiya bi kulli arfin min til uroofi busaaratan yan mu bi amaroofi addina ji li fi dale ba jàpp àjjana jële diggante bi nang fi jële lu ñuy ragal yow sang bi sunu wërsëgil nang ko baril sunu fanit nang ko guddal sunu yaram nang ko wéral te sol nu nag bi sëriñ bi ak barke bi di béer na sunu addina ci leer sunu alaaxira jëleer kër gële ak gii bakuleer may nu ci barkeb altene tëyëg àllëg may yu bu kenn gis ku ñu tane bis ba kuréel yépp di teer ak darajay talaata it xañal sunuy nooni mébét faw te jox leeni tawan ñu ñàkk bay liggéey xaar barkeb àllarba nanu jot nu rawoon ceeyi mébét ba noppi jot képp nit it ku nu rawan baraw ko kaar dàqal ci barkeb alxames lu nu bëggul ba mu ne mes teeg bu kenn gis tànkam ba sax ak fa mu jaar fajal ci barkeb ajjuma sun aaju yëpp tëjjanu may nu lu nuy wut wuyu noo may nu gëneeli kër yaar may nu ci barkeb gaawu nag jaglu gudul deyateeg ngërëm lu mel dul tëpp ak wun aw teyaataleer barke